ci bàkk ñaari réew yi le forum économique bi door mu di ab lël bu agence nationale pour l'investissement et les grands travaux ak agence gambienne de promotion des investissements et exportations organisée bi la rencontre bokk ci recommandation yi ñu jàppoon ci session bu conseil présidentiel diggante Sénégal ak Gambie ngir gën a mën a rataxal diggante ñaari réew. Cette cérémonie qui nous réunit ce matin xew-xew bi nga xam ne moo ñu fi dajale tey day tax ñu tàmbali liggéey bi nga xam ne mooy rataxal diggante bi ci suñu ñaari dëkk yi te itam dina dooleel suñu lëkkaloo bi soxla wàllum koom-koom. développement régional. lël bi di gën a firndeel partenariat bu am diggante Sénégal ak bi doon na ab prox ndoll ngir ñu siñe ay accord ci wàllum investissement. ñaari dëkk yi dañuy indi seen secteur privé pour que ñu waxtaan mais naka noonu ak gouvernement bi pour ñu seet. vraiment yan axe de a am mais aussi bu amee ay rëq ko mën a lever pour que ñu yeggali ko le plus haute ñaari réew yi wëy di rataxal seen diggante ci wàllum dem ak dikk loolee tax ba société sénégalaise de transport bi di Dakar dem dikk amal ak accord société de transport bu Gambie. ñu toog waxtaan xam na ni pour ñu jàppale askan wi il faut que ñu yokk yu nga xam ne ni mooy trajet diggante. Gambie ak Sénégal bu ñu ko waxtaanee ba juboo loolu moo tax ñu ñëw tey di firndeel ni incha allah dinañu yokk ñu nga xam ne ni bus yi ñu nga xam ne ni ñuy dem di dikk dak euh, Dakar ak Gambie. bu ñu sukkandikoo ci premier ministre Amadou Ba secteur privé am na taxawaay gu am solo lool ngir développement économie wu ñaari réew yi moo tax it mu leen di ñaax ngir ñu gën a mën a rataxal seen diggante ci wàllum investissement ngir gën a mën a naatal secteur privé.